bu ñeenteel bi loolu day yàq ay sidit góor guy soxla góor ni moom ay siditam day yàqu góor gu góor gu di soxla ay siditam day yàqu seen sidit yépp day yàqu moo tax ci jamonoy lool kiy door a dogg ci góor jigéen bu la jabari defalul formation doo bokk ndax góor gi dóor a ñëw day góore am déet waaye jabari luut mooy damm say sidit damm voix bi damm loxo yi damm tànk yi ba nga man li lacc-laccal comme jigéen mais xëy rek mel ko loolu yombut mu tax bi yàlla yi duma góor jigéen ña ne ko ah sa jabar nag naa ko dumuwaale ndax ñoom ñëpp moo leen formé xam nga loolu ci fabar yi la bokk bu juróomeel bi ci docteur li mu wax mooy góor guy soxla góor ni moom wala ñuy soxlonte seen muxu seen yuur day yàqu serveur bi te ku sa serveur yàqu xam ngeen suñ machine yi bu bu serveur bi yàqoo c'est fini boo bindee alif mu bind la jiim nga bind laam mu bind la miim c'est fini góor guy dox ci yooyu day mu ak moom tam nun lay mel ci péncam beneen bi góor jigéen góor ñi koy def doyuñu góor jigéen ñi ay jabar ba tax léeg-léeg ñu bëgg boole seen jabar ak seen far wu góor waaw boole seen jabar ak seen far wu góor adduna tukki bu juróom ñaaral bi mooy li nga xam ne mooy seen cër bi nga xam ne yàlla bind ko pour loolu ñoom ñu koy jëfandikoo pour loolu dafay gaaw ci def cancer dafay gaaw ci def yeneen xeeti feebar waaye da koy tas da koy toj da koy yàq loolu nag su xasee am ci ñoom tamit bu jëlee foofu feebar bi kum siqal nga am ko waaw ba joxantee deret ak yooyu sax mën na ci am bu gaa yu góorgóorlu woon bi ci mujj muy juróom-ñett yi mooy cër bi nit di am ba tax muy am bànneex su fekkee daf koy jëfandikoo ci góor ni moom cër ba day mujj day lànk benn benn mu am lu ñu tuddee télé impuissance la ngeen di wax xawma nga xam ne lekk kuy jaay ay garab ci rajo bi rek Abdourahman ñaari baat lay wax rek wax ko ñiy jaay yooyu benn baar la wax daal góor gu tële góor gu tële ci néegu sëy ñaari baar li wax wax ah walu xew <laughs> lu xew bañ bëgg a def feebar boobu feebaru pénc mi yépp yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci yooyu ma doon lim ay xeeti feebar la yoo xam ne docteur Mahmoud Hajazi moo ko wax ci téeram bi mu tudd léegi sax daam sama ñetteelu tomb mooy kañ la fi góor jigéen ñëw kañ fi góor jigéen ñëw góor jigéen ba mu fi ñëwee ak yàgg waaw ci jamonoy lóot ak Ibrahima ci jamonoy lóot la fi góor jigéen ame moo tax ba loolu waxee daf na leen xawma ku leen ko njëkk a def waaw maa sabaqakum biha min ahadin min al kenn njëkku leen ko def kon ñoom ñoo ko njëkk a def xaw ma lool moo tax sëñ Mbàkke ba mu naqaree sunu boroom la yebal kum jàpp ne mën na ca dara man ja dara nag mooy mu may ko fitu mu dénoncé ko bu ci dee am ngërëmam mu daal di yebal ku ñu wax luut danaa ñëw ci yàlla dalay jàngal ci alxuraan ne yonent ba ma sa ba ma sa yónni nii laa ko yónnee waaye luut moom neneen la ko yónnee lu bokkut ak ni mu leen yónnee waaye daal nit lool ña ñoo njëkk a def mbirum góor jigéen góor guy takk jabar ju góor ak góor guy am jëkkër wut ci xale yi benn xale adopté ko ndeysaan bu xale bi màggee am problème mooy bu ne ana ñu ne ko yow un nga am te tubaab xanaa du wax un mama <laughs> loolu dara gën koo garaw xale bi ci lay tàmbalee moom am problème parce que daa jàngi école ñu ne ko ñu ne ko un papa et une mama def naa noonu léegi mu ñëw ci kër gi ne ana mama ñu ne ko voici un mama xale bi ne am problème mais kon suñu jàngalekat bi moo mënta jàngale ndax un pour lu góor la in pour lu jigéen léegi nag ñu fekk man kiñ ne mooy sama yaay ñu ne ko in ba noppi muy góor loolu mën na koo jaaxal lool moo tax foofu lay tàmbalee message bi ko dugg tàmbali koo def góor jigéen ni ñaari waajuram yi ko adopté message la bu garaaw ci xale bi ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëmti yàlla bu mu bari sama juróomeelu tomb kan moo jàngale góor jigéen <laughs> le professeur mooy ki samp ndëndam ne yàlla kenn du fi baaxe la aqudanna lahum siraataka al mustaqim kooku mooy iblis moo jàngale mbirum góor jigéen ba mu ko jàngaleegul góor jigéen lay takk jigéen góor koy takk waaw fa ankihu ma taaba lakum min an nisaa Sëriñ Cheikh nee na sunu borom sunu borom bu yemoon ci xelum sénégalais képp danaan fankihu ma taaba lakum rek waaye du wax min an nisaa ndax ñun liñ doon jàpp kon mooy góor jigéen rek lay takk mu ne waaye yàlla roof fa baatu min nisaa mu ne dafa xam ne jamono ngi ñëw nit dana solum laafa teseg te jàkka ja ko solum laafa muy ñaari laafa ñu may menn laafa mi borom menn laafa mi suñu cheikh ko doon wax mu ne mu ne keroog nag la àdduna tàmbalee yàqu laafa muy takk laafa ni moom mu ne laafa na takk musóor boroom musóor musóor na ko boroom laa fa takk mbokk yi bi yàllay wax ci góor jigéen dafa am benn ibaara bu am solo wala ay ibaaraat yu am solo yu doon waxee yonent yi dem leen ci alquran ci laaraaf bi yàlla yónni non laqad arsalna nuuhan ila qawmi fa qaala yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilaahin xayr yàlla nee na maa yónni nuux ci ay mbokkam ba mu ñëw ñu leen sama mbokk yi dama leen di woo ci aqida mooy laa ilaha illallah nuuhun rasulullah al araf ay 59 waaye ustaas daam bi mu yebal huud wa ilaa aadin axaahum huuda wa ilaa aadin axaahum dégg nga damaa yebal aad ca mbokkam ya la damaa yebal huud ca mbokkam ya aad waaye dégg nga def ne ca mbokkam ya mu wax la noohun waxoon wa ilaa samuuda axaahum saaliha waaye bi mu ñëwee ci Luut mu ne wa luutan foofu lu jar a taxaw la mu tax góor jigéen boo dee xaritam yàlla dana la duma bu waxee nga muuñ sa muuñaay ba yàlla dana la duma bu reexee nga ree yàlla duma la bu jaaree ci koñ bi nga jaar fi mu jaar teg saw dàll ci dàll mu duma la boo ko mayee xorom mu duma la boo ko abalee paaka mu duma la bu ñëwee sa kër toggal la mbana mu duma la su la jàngalee mbaxalum góor jigéen yàlla duma la loo séq ak moom rek yàlla duma la moo tax fii wa ilaa aadin axaahum huuda wa ilaa thamuuda axaahum saaliha daal ne woon wutal lu tax waxul wa ilaa wa ilaa axaahum luuta mukk boolewu leen moo tax affaire bi bis boo ko xeebee defe ne ah euh, gaaye fii nekk rek loolu ëpp naa def moo tax yonent bi ñàkk ko xeeb tax bu góor masaana solo ni jigéen sax mu ne ko yàlla na nga toskare bu góor solo ni jigéen mu ne ko yàlla na nga toskare laana allahu rajula yalbasu libsata al mara wal marata talbasu libsata rajul nun la ko waxe moo tax bay bayal gi baaxul waaye xaritoo gi ak ànd gi it nag baaxul waaye yëgalal ko programme it baaxut dafa am yoo xam ne ci penc mi mbàkke ignoré ko rek moo cay baax waaye wax ko wax ko tudd ko da koy siiwalal am ku ragaloon tàmbalee ñeme